Dakar, notre plateforme mbokki internet yi ñu topp ci Dakar live nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen mbégte la saa su nekk jàkkaarloog yéen. Euh, tey nag ma dalal Ouzin Keita li ñu fas yéene sekk ci waxtaan bokk ci rek hommage bi nga xam ne euh, ba tey ñi ngi woy di ko defal rek jaaga di ko ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko ak aljana euh, li tax nag ñi seeti si Ouzin du lenn lu dul rek mu daal di bokk ak jaaga xam naa ci biir émission bi dina ñëw ak ñun fan la bokkee ak moom dama koy nuyu rek bu ko defee ñu doro waxtaan bi Ouzin maa ngi lay nuyu. asalaama asalaama asalaamaaleykum micro yi. Mhm. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam asalaam di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di yàgg di ñaanal ñëpp di wax ni tëdd la hôpital yàlla suñu borom fëgg seen bopp ñu jóg mm-hmm. ñi caabi féete ginnaaw yal na yàlla suñu borom sutaan ñu génn si jàmm salaam nga xam ne nga def loo xam ne neexu yàlla suñu borom yal na yàlla suñu borom changé seen ñëpp di ñaanal ñu gaañ tam seen kaw di ñaanal euh, jaaga fi mu fi fi mu jëm yàlla gën a fi mu jugee si bak seen axam sang-sang yal na ko yàlla suñu borom suturaal yàlla suñu borom baal ay bàkkaaram di ñaanal sama sama sama yaay ak sama xay yoo xam ne ñoo gaañu mm-hmm. yàlla suñu borom Euh, yal na yàlla su borom suturaal leen yal na yàlla suñu borom euh, dumbali leen suturaal leen. amiin dindi seen bakkaar ba mu set si bakk seen am sang-sang yi. Hmm. di di di nuyu di di ñëpp di kontaan si ñëpp di wax Sénégal yi yal yàgg. si bakk seen sang-sang yi. jërëjëf alors Ouzin euh, tey ñuy rendre hommage ki nga xamante ni moom moo di jaaga yaakaar naa ni fan yi yëpp nit ñaa ngi topp actualté bi nga xamante ni moom moo am Dakar live ak Feeling Dakar. di ci def liggéey boo xamante ni lépp rek ngir daal di koy rendre hommage. Mm. alors li tax ñu seet si la euh, ñu wax ni yow ak Diaga am na foo leen bokkee maanaam ay bokk ngeen est-ce que mën nga ma dikkal laata ñu ñëw waaw naa dëgg la. yëkkati micro ndax euh, dëgg la. Diaga ak euh, sama yaay sama yaay bàjjanam la. Mm. sama sama yaay maamu waal la. Mm. waal sekk ko du kéwé. waal sama yaay la gën a bokkal. man sama papa bàmbal la sama côté yaay la jaaga bokkal jaaga sama côté yaay la bokkal euh, jaaga euh, Pape Diouf mooy baayam uh-huh. man mam Fatou Jang mooy sama yaay Jang saa wënde uh-huh. jaaga sama mbokk la sama mbokk yaay la xam man mu ma yenn tàgg yi géwél ñu gën a xam yenn tàgg yi du ngisal du nit gaañ la ma bëgg a bokk moom du xëccoo bu bokkawaal si du ma ko def uh-huh. ndax doon sa baay doon sa baay ko gën ah. bugguma nit gaañoo ma bëgg xëcc nangam nangam jaaga sama mbokk la mhm. am ñu ko am ñu si xam dara mas mi ànd na maamu kër coon sekk mba président jaaga ñëw ma ibi bunt bi waxtaan ak man man ko kii sama ma sama rakk la mhm. jaaga tax woon Ouzin kay nangam nangam ñoom Alioune Seck xam nañ loolu waaye nag xam na ko xamu ko waaye Seck man waaye Seck ma ko doon photo Mm-hmm. booy gu njëkk Papa Laay moo bokkoon fan si koy waaj sekk yi. d'accord hmm. d'accord important alors ci loolu dañuy dugal sa sa tante euh, ngir sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan ñu gën a xam euh, li nga li nga xamante ni yaa ngi koy wax jamono ji ndax euh, wax nga ko léegi nekkul ni dafa génn àddina rek nga nga bokkeek moom alors dama lay jox sa yaay. waaw may nga mm-hmm. may. Hmm. Mm-hmm. alors si eh, ndéenu may yaa si. ne ko yaa ngi en direct yaa ngi. Eh, ne ne ma yaa ngi nu me. Euh, ki yaa ngi en damaa nekk nii def benn émission. Euh, kine ne. Eh, damaa nekk damaa nekk en nii di def benn benn émission. waaw ñu waxtaan émission bi ma ne leen man. man leen man jaaga sama mbokk yaay la. ma ne leen jaaga mooy kër sama kéwé koddu kéwé wax. micro yi ci kaw. waaw man dama bëgg nag nga leeral ñëpp ñu wax ma ay yaa ngi si waaw. dëgg la loolu laa wax. dëgg la loolu laa wax. waaw xam nga tam xam nga tey Sénégal tey jii Sénégalais tey jii boo boo waxee ñoom du duñu comprendre duñu ko gëm. nen yaakaar bës bi nga bëgg topp wala da ngaa bëgg bokk ak nit. dëgg la Mor dëgg la dëgg la. dëgg la. waaw. dëgg la maam Amath moo yer jaaga. waaw. waaw. loolu laa bëggoon nag moo tax ma a xaama woote pour seede. waaw ah, ba baax na baax na ba baax na après maa ngi lay waat. <laughs> Euh, waaw leer na mu mu nekk lu am solo. Euh, kon di nga gën a mën a wax ci ki nga xamante ni moom moo di jaaga. Mm-hmm. ñu koy waxaat encore une fois yal na ko yàlla suy boom jéggal. Mm-hmm. Euh, te xaare ko aljana firdawsi. Mm-hmm. alors tey ban témoignage ngay def ci moom. waaw jaaga. jaaga jaaga ku ma bëggoon la ku ma jox cër. yenn saa yi bu ma leen tàppaat wàllu ba ma tàppaat papa coon danaa ma sama yoon nekku si. yeneen bokkal jaaga dama naan wax nu ko toroxal ma si suuf mu woo ma si suuf su sutura na ma bàyyi mu sedd na ma ñi lay toroxal nan xamul na ma wàll sekk bu ma sañoon nit du nit du gaañ ma ma koy duloo wala ma ko wax loo ma nekk mu waa jaaga na ma li bu bu bu soñoon wàll sekk fu mu la yeen ànd ndax nga ànd moom la sama xel gën a ndax sa deret la yow yow ni jaayam nga kon tey ñëw ma pour tirise wala pour nangam nangam man Wally Seck xam laa ko gën a ñaan mu gën a defal toogaayam ndax li ma dal moo ko dal ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk sœur man sama sœur ma nekkoon sama wéeruwaay muy Safia man doon fecce kuum biis sama yaay gaañu sama papa gaañu ma des samay tante dala samay mbokk daf ma yëfu ngis sal du tee samay mbokk lekk ma bàyyi leen da ku ma àndal ku ma tane man dimbali naa ta yàlla tax kon waal Seck defal sa toogaay Wally Seck baa xam nga waal Seck ñi ñaa am ñu lay pëtë am ñoo xam nañ ñëw pour venger pour ànd ak yow waaye sa nit du la bañ démb tey mun laa bëgg waaye nit waaye nit nit waal sekk du la gasal ku jël mbaam xuux buy dund nga def ko nga gas ba mu suul def say tuur gas ba mu xóot nga tëmbal si kon tey ji du ñëw ba bëgg la wax ba àgg dafa ko moom hmm. ba laay wax de mbaam xuux buy dund nga tim ay turu ay turu nit di jam ay pusa ay pusa ba mbam xuux bi di sukuraat nga gas ba mu xóor nga suul kon kooku daf la ko kon tey du ñëwaat ne la baa baal ma àkk dama laa bëgg kooku du la bëgg Wally sekk dafa si toogaay ñàkk nga ñàkk nga ñaari wéruwaay ñàkk nga moomi Seck ñàkk Papa ñëw ñàkk jaaga mi xam ne mooy sa yaay ku baax xol jigéen gu jigéen gu suturaal doom man jaaga dama daa ana moom tunne mhm. waaye jaaga sax ma sa an tunne maa ma oui ma ja jaga no an tourné ma moom jaga no an tourné ma moom sa tourné no ànd bala mosaan tourné Italie ay Belgique yëpp ñoo ànd moom sa manager waxaab bu bu bu ma ne ñoom naay di toon di ma mbarak da daan leen bàyyi leen sama rakk ji <laughs> day kaf ma ñoom bokk bu ñu demee hôtel ñooy bokk kaf am ambiance mu bëgg ma lool di waxtaan man di ma dalal defal lii defal laa ba sama yaay gaañoo sama papa mm-hmm. man ka jàgga mere naa sama yaay papa bi samay ñëwoo dama usine kayit sa sa papa bi moo fee woon papa Thione ma damaa fee moo papa Thione xam papa Thione man dama kaa yeboon nag man papa Thione lu ma ko ñeme wax sax ay doom ñu ma ko wax ah. day day day toog man ko papa Thione dangaa dër papa Thione papa naa kaa ñàkk doogu si papa Thione maa moom def na def na ay émission moom tam mu nekk ku ma bëgg wax dëgg yàlla mu nekk ku ma bëgg ku ma nawloo Thione Seck ak jaaga ne ma bëggoon te yàlla tax waale ba ñu ma waa xaw ma samp xam na waa xaw ma dama gën a dimbale Wally Seck mu gën a def attention gën a méféwu ma fituwaa looki door Wally Seck nday dem na bàyyi dem na xa gën a xam sa bopp tax xam yaay kan xam fu ko jógee xam fu ko jógee am ñu bëri ñoo ànda yow bëgguñu la nen lépp taxal am lu ba jaan Wally Seck ku la bëgg la xam booba tey waxuma si dara am mbay ku bëgg Wally la ba méttee dafa taxaw olof Njaay ne métta nga daw bu neex doo ko mos a fekk jàpp too baay asgolo ko mun mhm. kon waa sëg jàpp nga jàppal amul ba daan def ko lépp def ko ndey def ko baay moom dara bëgg te yàlla tax xool si yow mhm. man naa ko nit mu mu diigal ma tappaas ko mu mu diigal ma ko wax ko keteme ba mu pare après xam naa ay ku la mhm. nit mu ko bëggoon pour tëxa jaar ko si man duma ko nangu waaye sax bañ ma ko benn yoon ku ko bëgg laa waaw soo moom moo noonu soo bis fi nekk làmb golo golo yàq moom waaw nan nekk soo bis soo mooy soo bi li nga xam ne mooy làmb golo golo yàq moom ku nekk dangay ñaan yàlla avance ku nekk dangay ñaan yàlla nga xool foo jëm ba tala sa ñaay waajur waaye ko bëgg laa ko yéene laa da àndu neex neex ba ba ma ànd ay nit def sa sacrifice bon di ko def duma ko def mën na la def nit lu bon man kayita yàlla këpp sama kaw mën na la yàq doomam yàlla këpp sama kaw waaw ku ma yàq benn yoon mën naa baal ñaa yoon ma ma fayu kon maa ngi jaale Wally Seck di jaale ñëpp di jaale Anne Seck di jaale ñépp di wax Wally sekk yéen bi diis na lool waaw foog nga muñ fi xam xamee góor yàlla ndey gaañu bàyyi gaañu nga nekk nga nekk taaw bu góor si côté yaay waaye fi nga gën a xam sa bopp waaye fi nga gën a mën a foor bu musa daw mhm. man lu xool lu may dund tax xal lu ma lu may dund da tey ji maa ngi sant yàlla maa ngi faratu ñëpp yaakaar mi da ñëpp yaakaar ma am xaalis te banaa yenn saa maa yow war lekk sa du ma ko def maa yow war a taxaw dara waaye yàlla sutura ma samay nit ku ma woon na am naa problème bi danga ma koy fayal te tax kon Wally Seck mi fiwu te xam sa bopp te wàññi sa entourage mm. waaw sa entourage xaaj bi amul bajaan moo la gën a bëgg amul bajaan moo gën a bëgg Wally Seck ñu muy àndal mm-hmm. amul bajaan moo gën a sincère Wally Seck mu gën a bëgg Wally mm. xam foo ko xoolee kon Waly Seck ah maa lay maa ngi lay maa ngi lay euh, wolof di waxee ngi lay euh, maa ngi lay jax ma ma maa ngi lay jax nga gën a def attention te gën a méféwu te gën a méféwu te gën te gën a xam sa bopp te gën a xam yaay kan. yaa ngi insisté ci Amady Badiane bi ñu commencé ak léegi. ku dégg Ousseynou muy waxee dafa mel ni dafa am lu mu toogaale maanaam dafa mel ni dafa am lu mu xam. lu ma xam dafa bëri na. li nga xam noonu di ko sànq ba tey naan ko teel Amady Badiane lan la dafa am lu ñuy pare pour Wally dafa am lu ñuy waaj pour Wally la wala lan moo xew. na nekk si dëj après nañ si wax dëj na nekk bu ma yokk fitna. Hmm. sànq dégg naa la nga ni euh, dafa am ñoo xam ne dañu euh, jël mbaam xaatim ko wala jam ko ay puso ba pare ñëw di baalu Wally li ngay wax nii ñi ko def dañu nekk ci entourage bi. wala ci suuf ñu ngi bi. Ah, ah. waaw micro yi. ñu ngi si entourage bi. ci entourage Wally Seck la ñu nekk instant bii. Wally Seck xamu tax xamu tax mënuñu ko dara. Mhm. Wally Seck moom moom ñoo xaw ñoo xaw a yem dañ am bopp. d'accord dafa am mhm. xam fu la ko jëlee bopp boobu yaayam. yaayam ñoom si yàlla si dafa am bopp. ñu mhm. suñu maam moom a njabal jinne suñu maam suñu maam moom a njabal jinne sama jabar ji la amoon ñu laal nu yombul mun a indi ay gàllankoor nat mun a am ay gàllankoor am ay wax ay nanga waa comme ñu daan ba àgg suuf noonu lu ñu fay fay fay mu génnee dëkk bi yëngu bay de yàlla ko dogal si jaam. dëgg la amul balaa amul bañaam bu a waat si ko dakaa bëgg mu sincère mu dëgg Samb amul ne dafa bëgg waale mu sincère mu dëgg mu gën a bëgg ginnaaw yàlla ay mbokkam. damay tag Alma Badiane man fekk naa foo xam ne Alma Badiane songal nit na Wally Seck de boobu Wally Seck si wagul boobu Wally Seck temps yooyu mën a premier partie soxla papaam ma ma ma def premier bu bu yëppee après coon soog a yëg am am jaan doon feccal coon Seck dama dafa bàyyi di feccal Wally mhm. bu nit waxee Wally Seck wax ju ñaaw mu xuloo yow xeexa di ko faj ndax artiste am ñoo xam ne da bëgguloon stressé Wally Seck dafa doon faj pare bu Wally ñëw mu ne kii loolu jota moom ko noonu dara Wally na bàyyi ki nga xeex bàyyi ki nga xuloo bàyyi loolu kii sama fekk fekk fekk fekk fekk amul bañaam faña na pat déggoo ma de bu baax ni doon yàq Wally wax ko wax ju ñaaw mbay xeex ko xeex ko bu ko noonu war a xeex kii wala nangam kii sama xarit la fekk kooku dafa yàq Wally mbay da ko doon faj mbay bu ko neexoon mu def nga bay ñëw ne ko dafa attention si kii mhm. day fekk li muy faj loolu mooy si nit important. bu nekkoon nit Sénégalais yi xam ne nit day ñëw wax la wax ci ñaaw nañu yàkkam na ko man ko kenn dañu ma ki nee dafa jox ko boo ko faj ba mu ba ba mu ko xëy naa ne yow yaay sama noonu. dëgg la ndax ku indi mooy yóbbu. Hmm. tey indi ma def bi dee ma Ouzin bëri nga tey wax nit laay wax. waaw tey jii sànq ñëpp ne damaa ñaaw ñu bëri nañu yaakaar man ku ma àndal dama lay siiwal di wax wax day fekk nga def ma defaat ma ma soo ko fayu. dëgg la bu njëkk daaw ma fayantee léegi nañ nekk si dëkk boo xam ne gàtt sa gàtt na nekk man dawutuma saa yaay ndeer booy ba na fa booy ba na ma fi yàlla yamal ndax da nekk si foo xam ne stress dafa métti man tey Ouzin Keita tam pourtant maa ngi kaf maa ngi reetaan pourtant Ouzin am na stress bu ko métti si biir xolam da kenn xamu ko pourtant lu métti sa biir Ouzin am na lu ko métti lool da mu toog wax ko ma am na loo xam ne mu ngi si man mekk ma loolu moo toog kenn wax ko wóotu ba kenn si àdduna man bu nekkee damay àndal nit lu ma la xamal si si baa ma yàqal ko yàlla këpp sama kaw lu lépp moo wax si àdduna Mm. lu tax yenn sax ni daf ma daal ni damay def dara benn yoon mën naa ne erreur la nit mënut a ñàkk nit bu la tooñee benn yoon mën nga ne erreur la wala ki defuñu ak jigéen ñaari yoon bi nag nga ne kii ah moo ko tey ñett yoon moo vuril faraat mm-hmm. waaw yow yaay troisième personne boo xam ne euh, dékk nañ la micro nga yëkkati kàddu yu mel nii ne Wally Seck na defaraat entourage am ndax li ko wër bu dee cent euh, mën nañoo wax ni quatre-vingt-dix yi bëgguñu ko wax jooju noonu euh, ñu gis ni ñu ngi koy souligner euh, jamono ji maa kay ko wax loolu maa ko njëkk a wax. Hmm. loolu maa ko njëkk a wax. micro bi ko njëkk a wax. maa ko njëkk a wax. maa ko njëkk a wax. d'accord. ban tey ñu amul bajaan ban tey ñu amul bajaan ah, amicu mhm. pendant loolu su ba wàll la bëggoon diigal. waaye est-ce que bëggoon diigal waaye lañ buggoon mu bëtax moo tax def loolu. xam nga lépp fu mu jugee. Mhm. loolu dama si waxaat. dëgg la waaw c'est important alors Ouzin nga bokk ak jaaga muy sa mbokk dañ koy ñaanalaat yàlla suñu borom yërëm ko nga dégg témoignage yi nga xamante ni moom la askan wi def euh, lépp nekk benn kàddu ku ne di ko waxal ay baax baaxam ñenn ñi sax dem ba naan da doon def ci sutura euh, ndax tey ku dem ba tiim néew di ko sang boo amul sutura doo ko def tey sa mbokk euh, dëddu la wan la ginnaaw témoignage yooyu nga xam ne def nañ ko ci moom alors yow ban gis-gis nga ci am. waaw jaaga dafa sutura dëgg la. Mhm, micro yi jaaga dafa am sutura. ja jaaga dafa am sutura. jaaga sekk xam nga jaaga xam nga kan la nuru si si si si si si doom yi. Mhm. Mouhamed. Mouhamed Seck. waaw ku baax la. comme yéen maanaam Mouhamed Seck gis ngeen si yenn yi. mu mhm. ngi Mouhamed Seck gis ngeen si ay pataam yoo xam si yenn yi. Mouhamed Seck gis ngeen si yenn yi. pourtant Mouhamed Seck nekk si milieu fu ma gis de day daw ñëw kort ma nuyu ma hmm. ku ma jox cër bu ko dee xam ne Ouzin Keita day xuloo waa kay entourage naa waa Seck ma dugg si hmm. pourtant ba dalee seen kaw mooy seen papa mos naa dal seen kaw njangam si yaay mën naa dal seen kaw ma waa dal seen kaw bu ma gisee ma jox kort ma ne ma Ouzin Keita yaa ko fa am yaa ko sañ a wax hmm. ñu bay ànd fekkoo ma ko ba ngay bokk sama yaay fekkoo loolu ma wax man sama yoon nekk si wax ji wax lu ma jaaga wax jàng na ma bu la neexee nga xas waale wax lu la ne waaj ba nga xas sama jëkkër ji man ko man ko man ko man ko ma mbara ko ne ko bàyyi ma sa jëkkër ji nga xam ne tàng tàng bi ma ci mu defee xaba jeex jaaga yuuxu reetaan kott ma dama Ouzin Keita yow lu la neex wax laal woo Papa man ko dama laa ñëw dama kaay sama jaxal ma jóg fa indi fa ambiance ñu kaf ñu reetaan mu ne def ñu def maam moom si ma invité invité Pawlish Mbaye pourtant ñaata ñu ne an maa moo tax ma xam euro man bi ne la man nax lat bay a tukki man nax lat ñoo bokkoon vol maam moom ay jaaga ñoo bokkoon vol tournée ñu def yëpp mm. waaw coon coon 2014 ba 2015 ñoo ànd tournée bu anda waa sekk kenn ñëwagul di tukki xale yi fi ñëw kenn ñëwul moo tax xale yi naan li nga def waa sekk wala kaa def nangam naa xamuñu moo tax ñu guy gësam guy gësam bàyyi reen baa ngi suuf wala déggu ma guy gësam guy gësam baa reen baa ngi suuf reen bi xamuñu comprendre <laughs> xamuñu comprendre man kay lu ma la koy wax da kuy duur wala kuy fen bu na jàkk sa bët da ngay xam kon waaye sama ma ko waaye jikkoom entourage neexul lu la gën a marqué ci li nga xamante ni jaaga daan na ko def lu ma gën a manqué dëgg la dëgg la jàgg doon sang ay néew dëgg ay néew waa jàgg doon def social suuf waa jàgg doon jàgg doon def sutura suuf jàgg doon def sutura suuf jàgg doon def suuf jàgg nit nit da koy tane sax nit nit day gis mu micro moo diis jàgg day jàgg day sutura doomu adama day fekk nit nekk si problème mu ñëw wax ko mu faj ko te yàlla te kenn du kenn du xam ñaata ñoom problème jàng suturaale pourtant man ñu bëri na wax naa ma Wally Seck ñu bëri na doon wax naa man ñu bëri na doon ñëw na ma Wally Seck ñu bëri na ñëw na ma Wally yow dox doo jox xal tabaski wala nangam man ko man ko lu xal tabaski laa ma kii pour naa dëgg lu de jàgg dara ma yow lu tax lu tax la mu jël sa xaar dama koy wax sa moom man ko non non jàgg dama Wally Seck ñëpp lay jox xaar man ko dëgg yaa mosuma jox xaar man du fen dëgg la du ma fen du ma fen ni du ma dara ba ma toog wa jaaga du ma def loo xam ne du ma toog naan ko jaaga gaañ ma ma bëgg lu neex nit ñi ma naan jaaga doo def du ma ko def du ma def yëfu ngis te du ma ko def mm-hmm. jaaga en tout fekk bunt kër mu fees dal ay nit mu jàppale leneen leneen loolu ak xamal xamal xamal ko lu ñaaw ma xamal lu ñaaw du ko wax na xamal ma ko lu ñaaw mm-hmm. na en tout cas daal nday siix la te ñax ñaa la tëddee mm-hmm. mm. jigéenu social bi mu doon muy muy lu raar Euh, parce que ñu ci baree bari tey bu ñu la joxee benn ñaar. na nga koy filmé ñu eh, ñu bëri bu ñu def benn ñaar na nga de dëkk bi léegi bu ñu lay may foog pota bi tàkk vidéo tàkk lu la may sutur amatul si àdduna. ngir sal Sénégal ñu bëri ay foo kat nan ay bu ñu lay bu ñu lay taral yi tàkk kii ñu taral la eh, amatul Sénégal de. da def def def sutura. te jaaga loolu la doon def. waaw loolu la doon wéyee. mu nekk lu am important mu nekk jigéenu exemplaire boo xam ne ñu bëree bëri mun nañoo jàng ci li nga xamante ni mi ngi koy def rawatina jaamu yàlla ba ba wane ginnaaw parce que démb dégg naa kenn mu ne jaaga biir biir këram dafa amoon euh, fenn foo xamante ni jaamukaay yàlla la fa daan def maanaam foofu la doon fiddaawoo bu daan wéetal yàlla foofu la ko daan defee. ci côté julliteem waaw waaw dafa amoon comme genre jàkk la. waaw ah. comme genre jumaa fu am suuf bi la. Mm-hmm. foofu foofu la doon jullee foofu la doon ah. dafa julli ma fu ko moom day jàpp day seetlu. moom dafa moom day sell ba wax dëgg yàlla. complicité bu mu amoon ci ay doomam parce que du Wally Seck rek mais wax nañu Bintu wax nañu ku ci mel ni Mouhamed ak ñeneen ñi mais dañu wax ni dañu amoon ak moom complicité boo xamante ni ñu bëri jàpp nañ ne peut-être tey du yomb ñu mën a dékku génn àdduna jaaga. waaw waaye jaaga ba borom këram demee wane ginnaaw ba tey dafa feebar. Hmm. bëgg jëkkam wane ginnaaw ba tey jaaga dafa feebar jaaga bëgg jëkkam wane ginnaaw ba tey de. jëkkam hmm. wane ginnaaw ba tey dafa feebar. Mm-hmm. waaw bu ko jigéen bu ne ginnaaw ba daf feebar. Mm-hmm. d'accord démb dégg nañu ku mel ni délégué mu ne euh, jaaga jëndoon na fi ñu koy denc bu yàgg maanaam ba ñu dencee euh, Papa dafa jënd ci wetam foo xamante ni fa lañ koy denc mu mel ni gëm yàlla te moom yàgg naa waajal boppam wane ni moom yàgg-yàgg dafay wuy ji boromam ngëm-ngëm goobu nga xamante ni àndoon na ko waaw euh, jaaga yoof la jënd mm-hmm. moom papaam famille leen def foofu ah. famille leen def man dem naa fa ba ba kii sama yaay ba ni tuuti doon cek dama naa mm. moom bi du ma ndaw ma woon ah. ndax dafa fekkoon temps yi xaw moon moo tax pourtant mm-hmm. tey ji man damaa malade pourtant mm-hmm. man feebar naa de wax ma kenn du ma lu ma ma dal mm, waaw du ma wax kenn lu ma ma dal waaw dama gëm yàlla suñu borom ndax yàlla suñu borom nit moo xamul nit waaye yàlla xam nit yàlla moo jël def ko lu ko neex Mm-hmm. yàlla bu nit bu kenn gisee kenn nit yàlla moom na gisee doomu aadama bu ne nit ki def bon nit ki ni lay def yàlla suñu boobu mooy bind doomu aadama def lu ko neex yàlla mu la mel naa la mal kon en tout cas na nga fexe muy sa borom sa borom wàccee da nga ko jox mm-hmm. day jul di woo di seetla di jàmm yàlla suñu borom di joxe asaka dimbal ko ko ko àndal nga dimbali ko te tax mm-hmm. yàlla da lay suturaal Mhm. def na act boo xamante ni ñu bëri bëri peut-être dinañ ne euh, ku gëmul yàlla dëgg-dëgg doo ko def mooy maanaam jëndal sa bopp bàmmeel ci jamono joo xamante ni di tëddoo feebar dara dalu la def na ko ci moment yu difficile ndax tey jii man mii euh, du ma dem di jëndi peut-être moom gëm-gëmam <laughs> moo ko moo ko yóbbee woon mel noonu ak julliteem dëgg la man ànd naa sama mag bu jigéen bi awali ah. ñu ànd benn xale jigéen ne di jënd bàmmeel dafa jënd bàmmeel te ñett fa ñu woo ma ne ma diw nangam gaañ na hmm. bàkki Mohamed moo di ko aw aw dafa yuuxu eh, ñetti fan mu gaañu lu yéeme am ñoo xam seen dee nañ koy sentir am ñoo xam seen dee nañ koy xam ñun ñaan yàlla yàlla na yéex yàlla na yéex si bakk seen naa xam ne yàlla na yéex complicité ak Thione Seck parce que wax nga ko léegi nga ne euh, bi Thione génne àddina jaaga euh, nekkatul woon complicité boobu est-ce que gisoo ni tey moo moo waral li ni waaw loolu bëggante bu sincère bu dëgg la. waaw coon jaaga la xam jaaga. coon la xam coon la xam. waaw parce que waxoon na ko ci benn vidéo mu ne coon mooy jëkkër bu njëkk mooy jëkkër ju mujj te bi mu bi mu koy wax ci ci moment yooyu euh, moment yooyu la coon sekk génnoon àdduna. Hmm. mu nekk ngëm boo xamante ne amoon na ko. waaw dëgg la. Hmm. Euh, ngëm-ngëm la xam nga mbëggeel day sincère day dëggu. waaw bu ñu jaaga ba ne ànd ba daw du dara la. boobu coon amul amul dara macha allah jaaga ñu suñ mbokk yi mbokk yu riis la am man sama man samay mbokk ñooy dëlëtal lu sama tànn wax sànq dëlëtal bu gën a mag dëlëtal bu gën a mag Sénégal sama mbokk la par man neexul ma fa jaar ne may leen ma dimbali leen ma man neexul ma fa jaar sa sama côté yaay laay wax nii jaaga sama côté yaay lañ bokk man sama papa bambal la man sama papa orofam sa leeru mhm. sam mm-hmm. malien la ab pël sam papa baa baa baa xam nga baa xam nga bu gisee ba baa xam nga sam ko gisee gis nga jaaga mm-hmm. xam lu la wutalee sam maam dafa ndaw sam maam dafa gàtt jaaga moo ko gën a njool mm-hmm. sama gisee gis nga jaaga sama bu toogee jaaga danga ko jur sama sama maam ju rafet la amoon macha allah. kon tey ji caméra du tàkk may du may invité wax lu nekk si noonu man du ma hypocrite aji tey ji bu ma la mere woon mu si fi mu feeñ ci man ko dagat bu ngeen la ko ci kaw waaw dëgg la euh, tey Wally Seck ñàkk lu lu fort ci ci àddinaam parce que ku mën a wax wax ni relation bi Wally Seck amoon ak way juróom muy jaaga complicité parce que mës nañ ko dégg sax ci benn vidéo ñu laaj ko sa relation ak Wally ak euh, Diaga Wally sekk dafa jooy ba émission boobu yaakaar naa ne dañ ko mujjoon dagg oh. complicité bi nekk ci seen diggante tey way juróom bu jigéen wan ko ginnaaw vide boobu Ouzin vide boobu nga xamante ni euh, Wally Seck nar la ko dund fii lay xamee fii lay xamee foram nee naa Wally Seck sànq gudd yàllam fii lay gën a mën a taxawee mm-hmm. man ana man ana ana ensemble man mi man suuka par exemple man damaa fi damaa toog sama toogaay par exemple maa ngi sama eh man lu ma gën a mel sama àddama man man ka ma ne ko sa sama ko man sama yaay ma ne ko sama sama complice man dama daan dama daan dem programme ana sama sama yaay monté sama saak ak ah, leneen leneen Wally Seck fi lay xamee boppam su bëri hmm. ndax ah Wally Seck na sas nañ ko de hmm. ay santor mooy bàyyi dëgg la isantoon mooy baay mooy yaay mooy lépp fii la wala gën a xam boppam waaye c'est fii la fii wala gën a taxawee boppam fii la wala dëggale boppam fii la wala sege entourage am na seg entourage am segg xam lu bëgg xam lu mu xam lu muy def benn instant moom nawlaa naa ko ndax jigéen ko am fula la ndax xam nga soxna de man nawla ko dafa xam soo bis soxna de soxna de la Soxna la Soxna Daba. Soxna Soxna Aïdara ba nga ko Soxna Aïdara ba ba ma koy fréquenté ba nga koy xam di ko fréquenté picc bu njëkk maanaam ba ma xam ma wàll 100 pour cent rek soo da xam naa ko baax baax xam na ma xam naa ko. Mhm. Euh, ñu koy ñaanal encore yàlla yërëm ko xaare ko ak jana moom jaaga ak képp koo xam ne rek jullit nga yàlla na la yàlla suñu borom yërëm alors fi may ñëw mooy euh, tey ñi nga xam ne at si jooyoo fu nga ñëw si si dem fi kër dëdd di jooyoo dinañ dinañ si ñëw d'accord tey ñi nga xam ne euh, dañuy wax que Wally fii la war a jaaree bàyyi woy wala mu pose tey yow ban gis-gis nga am tey ci kàddu yooyu nga xamante ni ñu ngi koy wax pour le moment Wally Seck li aam lay def li métier la liggéeyam lay liggéeyam lay def bu dawee waaw bu bàyyi woo ñu ne waa dafa daw da bu ay waay wañ ñang may dàkk wuy ma da bu métti nga daw bu neex da nga sa fekkee mhm. waa sek bu bàyyi wooy daanu bu dawee da daanu waa na gën a jàpp na fonce waa na foncé waa na foncé na gëm boppam na dëgg boppam ma ma laaj man man combien man def naa fi son nekk studio sam papa nekk studio sam papa gaañu ma xam man xaar ñëw di passé bàyyi may génne waat son sama rakk jëmi gaañu mm-hmm. yow affaire man ni son bi ne ma man na man man ni son bi man comprendre ma daal mm-hmm. son bi ne la génn la keneen dee affaire bi tegloo maas maas woo ma maas ma baal ma sakk sang mm-hmm. maas samba bi sax gisoo as soxna bi sax dañu ko doon préparé ak ñu dafa garaaw lu garaaw la saa bu ma préparé sonné. ma toog. laataa loolu ñu ngi doon guerre ñoom ci seen biir alors loolu. jàngat waaw loolu loolu loolu mën naa nekk. ndax mi de soo bi ñoom kenn bañante wu seen biir ñu at cent pour cent bañante wuñu baax nga si at si at si bañante wuñu ku nekk na bëgg ko ku nekk na bëgg ko raraaw mm-hmm. waaw soo bi ay dof foog ngay xib seen bët mm. di gis ñaa at ci xeexoo di xuloo nga naan ñaa ñi bëggante wuñu fekk nañ bëggante cent pour cent soo bi foog mu xeex foog mu xëccoo kii fare fi kii fare fi loolu day neex mm-hmm. waa seen entourage ñooy ñooy seetaan ñoo dul kat yi kii day ñëw nag ki neen nangam ki neen nangam fekk kooku duur na fa duur yu garaaw. nettali wante. waaw comme tey jii comme genre kii ma wax wax ma ko nag comme doo faa. waaw comme des fois dem dem benn kër ñëw si ñëw si at bi ne at bi ne nangam damay at ko nangam indi ay duur bu kii demee fi kii dem faa baa xam nga kuy ñëw di la wax moom mooy jotali baa xam nga si at ah, nit bu ñëwee ne kii lu mu la wax la ki neen nangam ne ko ma nga ko waxee loo ko wax kooku bu ko fajee. yëpp kooku lu mel ni bu ëllëg kooku du ko wax du ko yónnee ay wax ki ma yónnee ay wax man ku ma yónnee ay wax dootu ko rafet naa na yow yaa ma dugalal xam la ma gis doomam man ku ma yónnee ay wax faj ko paye boo wax nga ma tam dafa attention nangam nangam boobaa dinaa météo dinaa xam ne kii nangam nangam. kenn mel ni ay wax at si ñoo garaaw te du mën a duur. dem si dëj di jooy di daanu buñ jooyee tey bëlungu jooy da araam nañ da xaabaag si bi daanu dañ xaabaag si bi daanu di yuux da suñ jooy yëpp ngi sël la. paye hmm. géwél itam ngeen ngeen baal ma géwél laa ngir bàyyi dëj bi ngeen dem di woyaan ma ni ku nekk mariage dëju moom yi dama rus dëgg maa ngi dem kilifa bu ñëw ñu daw la di nangu di xaj xaaj affaire sama gi dem na ay dëmm gé- bu ñëw ñëw si gindi gaa toog géer bu ñëwee wala kilifa bu ñëwee da léegi nga ba sa oto taalal loxo man dëj léegi xayma ma dëj xayma ma manège ma ceeb dëj léegi nañ koy baas daf woo Touba baas woo bis nga mu onne dëj yi daf taawal comme taaw mariage wala taawal génn fi fi toog loolu damaa jaaxal. dëj Sénégal. dëj du mariage du ngénte laabaan dafa am ceeb am ngént am nangu naa ngénte léegi am mariage si benn la nangu naa lépp beten la beten beten am mariage benn la waan dëj dëgg la. onne yi ngeen onne ceeb bi dañ koy onne banson yi dañ koy onne fingete dañ koy onne Touba Basse da nga dëj boo xam da ngay soo boori bu weex taal mën na kuy marié daf kaala bu weex takk so or ba fees loolu doj loolu mbeeraay la xam leen di ngeen si dëj yi dee am na de te yàlla si moom ne as bu na laxe anima okke ni dee am na dee am na at si yéen ngeen si dëj ak géwél daan di yuux du ngis sel loolu baaxul am na koo xam dafa benn dëj daanu fa yuux mat sama benn restaurant muy naan ji. Mm. waaw du wax du wax kan la. marom ko ne ko ne ko yaa daan noonu ñëw di naan say ji mu ree ñëpp bu ma ko waxee a taalee ko wasalaam. <laughs> d' accord alors euh, ngir ngir rek euh, ñu ñu tëj tey euh, artistes yi nga xamante ni peut ñooy defante lu ñaaw waxante lu ñaaw geerante ñi nga xamante ni ñooy ànd ak artistes yi bi ci réseaux sociaux yi. eh man bëgg démb man bëgg sama sama kër nga ñëw suuf ay galaaj. Hmm. waaw xam naa ko def. kan la noonu jërë nga wax dinaa fayu nag damay xam ba dañ paas ma wax kan la. <laughs> ñu nekk ci dëj fu mu pour wax dangam ba dëj bi paas. d'accord bu suuree ba pare ba dëj bi paas naa wax kan mooy sa buntu kër. jërëjëf dama ko àkk ji naan woo kii dama ko bàyyi. Mhm. bi ma ñaayoom def ko. Mhm. Mm. jërëjëf euh, Ouzin ñu ngi lay sant bu baax di la di la gërëm di la jaalewaat li ñu bokk muy jaaga di ko ñaanal yàlla suñu borom. yal na suuf ay suñ yal na suuf ay si kawam yal na suuf ñu tëdd seen bopp. amiin ginnaaw yal na yal na suturaal ñu génn ci jàmm ak salaam. ñi nga xam ne nay tëb di përier si kër jàmbur yal na suñu ñu bàyyi tëb bi ndax doomu aadama sàcc bu métti sàcc bu la jàppee sàcc bu la jàpp métti na bu la jàpp mën na laa yàq kon sàcc wóorul waaw jërëjëf di la sant bu baax di la jaajëfal yéen itam sant leen jaajëfal leen ci topp gi bàyyi xel bi jox leen rendez beneen yoon ci beneen ndaje jërëjëf <laughs> del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu